Euh, ba noppi muy ziar bu am solo mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi noonu ngeen ko gis ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw di amal seen ziar euh, bi ñu ñëwee fi nga xamante ni mooy ci buntu kër bi fekk nañ fa kuréel bu am solo ñuy jàng xam naa kon dama leen di bàyyi ak sama caméraman rek bu ko defee mu daal di digleel kuréel bi incha allahu taala

jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen njàngum xasida mu am solo moomu nga xam ne jub na fi macha allah ma leen ko waxee rek ba tey ñu ngi ci kër sëriñ Ibrahima Mbacke ñu jën ko xam sëriñ Ibrahima Mbacke ñaamar gis ngeen ko noonu ginnaaw bu nu amalee ziar yi mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi jóge fenn fu nekk gis ngeen ko noonu ñëw di amal seeni ziar waaye bi nu ñëwee fiit fekk nañ fi ak njabootam macha allah xam naa ne sëriñ bi dana ci ñëw waaye jox nañ sëriñ Mbacke mi nga xamante ni moom sëriñ Ibrahima ñaamar moom it kaddu yi la dénkanteeg seen télévision As-Samadiyya ginnaaw bu ñu dégloo njàngum xasida mu am solo moom moom. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy nuyu mbokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ak mbokki taalibe yi di siyaare bu baax sëriñ Mountakha Mbacké xalif saxal di murit siyaare sëriñ Cheikh Mbacké Madina ak njabootuk sëriñ mbakki Madina gépp di nuyu ak di siyaar sëriñ Abdou Samane Mbacké sëriñ Sohabi bi nga xam ne ah mooy kilifa. barab bii nga xam ne moo fi ñëw tey ngir mën a ñu mën leen di jottali ay kàddu kàddu yi nag kàddu yi sant la rek ak ngërëm di wax ne bis bi tey ah bisub sëriñ bi la ñu koy ñaanal di ko fàttaliku di jàng alxuraan ak xasida ànd ko mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp ah tey sàkkit fu waay nekkit nga dolli koy ñaan ndax ñun moom lu ñu am Serigne Mbacke Madina la kon bis bi mel nii bu ñëwee ah, sama di samadiyya daal di jël ay matuwaayam yëpp ngir ñëw bokkook ñun ñu ñu leen di sant di leen gërëm di sant seen kilifa bu baax di Serigne Abdou Samad Mbacke am Serigne Souhaïbou di rafetlu bu baax ab taxawaayam ci dëkk bii nga xam ne mooy Touba nga xam ne lépp loo xam ne rek lu baax la ak lu rafet loxoom a ngi ca guddi ak bëccëg ah, di ko siyaare. di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wér ah, di gis bu baax waxtaan yu am solo yi nga xam ne yëpp it wax dëgg mi ngi koy def ci yoon wi nga xam ne képp koo xam ne lu baax rek la ñor boo ko dee déglu ah dana la dolli ah dana la doon loo xam ne daal dana la mm, fàttali loo xam ne loo foo war a mën a jaar la ba topp sëriñ bi ci digle yi nga xam ne ñi ñu koy digal di ñu ko tere loolu kon ñépp teg nañ ci bët loolu nag bu amee waaw ah, dañuy xam ne rek def na lam mu war a def ndax waajuram sëriñ Soxna bi ku ko xam xam na ci lool rek la nekkoon waaw ah, suñ maam ji nga xam ne moom la ñuy ñaanalit di sëriñ Mbàkke Madinaat ci woowu yoon rek la nekkoon ñoom seeni i jikko benn la woon kon nag ñu ngi mm, fàttali suñu kóllëre ah, ak suñu taalibe di ko jooyale ci moom di digal bu baax mbokki taalibe yi ñu gën a doolee góorlu rek ci jaamu yàlla ci nangoo liggéey ah ci lépp loo xam ne rek euh, ndigali sëriñ bi la ah, ñu di ko gën a fagaru gën koo jàpp te xam ne loolu mooy li nga xam ne moo ñu jëriñ àdduna ak ñun nag ci ndigal lool rek ci lañ nekk képp koo xam ne njabootu sëriñ Mbàkke Madina ci loolu lañ lay woo kon ñu ngi sant daal ñi fi teew ñëpp ñi nga xam ne fu waay mën a joge daal ñëw ci bis bi ah ngir jëmi sëriñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal yàlla yiw wi nga xam ne ñu ngi ko fiy sàkku suñ borom defal ñu ko defal ko mbokki julit yëpp defal ko muy ay xeewul réew mi ah defal ko mm, bi yi nga xam ne ah muy doog a juddu te am solo lool muy bokk ci télé yi gën a siifar te lépp loo xam ne ma ngi fay jóge di njëriñ rek. muy njariñ loo xam ne ku ne man na caa jëriñu kon yàlla na ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla def mu mu àgg foo xam ne fépp fu télé di àgg rek suñ borom àggale ko fa ndax ñun ñi nga xam ne ñooy ay murit daal gis nañ suñ bopp bu baax a baax a baax kon ñi ngi sant di gërëm tey ñaan yàlla mu suñ suñ borom defal ko ko defal ko ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi àndal ñëpp di ci yëngu suñ borom defal leen ak tawféex ba li sëriñ bi bëgg ci ñoom